kon mbokk yi nañu xam ni sunna moom moom rek moo war a féete kaw ndax bidaa safara la gémmiñ loolu la yonent bi wax dugal ko sa gémmiñ nga màtt ko pour nga ànd ak moom fit moo la koy may soo amul fit doo dem soo ragalee coow doo xatta ba ci duaat yi ndeysaan maa ngi am benn kii buñ ma yónnee woon semaine bee te ki ma ko yónnee wallaahi nitu tariixa la xam naa daa foog ne rek <laughs> gars yi dañu wut ay fitna benn waay bu def benn xutba euh, di dal benn mbokk di dal xale yi maanaam ci sunna daal dafa am benn jógin bu bees maa ngi leen koy dénk de jóg leen jóginu sunna yéen ñëpp xale yi moo bu ñu jógul jógu sunna lu ñu jóg jógu biddaa waliyaadu billaah yàlla nañu yàlla musal ci ñu jóg jógu biddaa incha allah ci sunna la ñuy jóg ndax loolu la ñu bi dénkoon loolu la dénkoon ndaw ñi loolu la dénkoon sabaab yi loolu ci la ñu war a jóg waaw mbokk yi bu ñu jàppul sunna jóg pour tey sunna nan la ñuy def nan la ñuy def dañuy nekk fii di maslaa ay caaxaan dañuy nekk fii di ànd ak ay ahlu bida ñoo xam ni caaxaan ci la ñu nekk wala ñun dañoo bëgg jël diine jii di ko def maslaa di waxee nu mu ñu neexee déedéet mbokk yi amul ben ahlu sunna budul jàng alquran ku wax leneen yaa ko sos mais amut wallahi ahlu sunna yi ñoo fi jàng alquran ñoo ko fi jàng de ñoo fi yore daara yi de yi fi ëpp ñoo ko yore ñoo fi jëfee alquran nit munul dund sunna te jàngul alquran munul nekk munul nekk dooma gennel benn ndaw ci sabab yi kuy ñëw ci sunna bàyyi alquran amul ki ko wax waxut lu am amul seytaane da ko mën rek mais waxut lu am bakkan la waxee mais xam na ni ahlu sunna yi dañuy jëfee alquran di jëfe sunna ñoo fi jàng riwaayaat yi ñoom ñoo koy naafilaa guddi ñoo nekk ñoo xamante ni li alquran jàngale loolu la ñuy jëfee ci biir saxaaba yi dafa am ñu mokkaloon am ñu mokkalul loolu moo am ba tey am na ci ahlu sunna yi ñu mokkal ak ñu mokkalul kon mbokk yi jóg leen njógam sunna yéen ndaw ñi jóg leen njógam sunna loola mooy dëgg jóg leen njógam sunna te ngeen moytu njógam bida ngeen comprendre ñaari mbir dafa am ñoo xam ne ragal moo leen di jàpp ba ñuy maslaa bay maasala te bàyyiwuñ ko xel loolu nag dafa am ci nit yi dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo xaw a ragal nattu la donte nak nekul lu bon ndax ragal day am waye nak ndaw ñi ku len encourager wul wax deug yàlla waroo leen waro waro le na déstabiliser waro le na déstabiliser kon mbokk yi wa atiu allah wa atiu rasul damay am kersa sax ndax bima waji sanne lolou wallahi loolu na ci wax mais damay am kersa damay rus dama am kersa lool ndax am na lool boo ci waxee dalay jaxaseeg sa nit dalay jaxaseeg sa nit te doo xam <laughs> lan mooy sabab bi doo comprendre wallaay damay toog di ci xalaat di ci xalaat ba ci àgg ma ne man comprendre ma ko lii lii pour lan la ko pour lan daf may jaaxal moo tax mbokk yi nañu xam ni sunna mooy gaalu yonent yàlla nuux ku ci yéeg danga mucc pour nga yéeg ci nag il faut ñu góor góorgóorlu ñu jàng mbokk yi nañu gën a góorlu ci jàng dem ci xalqa yi ci jiit yi dem ci ustaas yi gàdd suñuy téere bu ñu ñëw rek nag <coughs> ne dañuy dund sunna te yokk wuñu ci alquran yokk wuñ ci sunna loolu moom baaxul kon li may dénkaane mooy ku nekk ci yéen na góorgóorlu ba ut ab téeréem seet boroom xam-xam bu mu wóolu xam-xamam te njub na ci moom ndax kat wa ulul ilmi qaaiman bil qist nga dem jàng te ñu jàng nag mbokk yi nañ leen góorlu jàng dund sunna juróomi at nag te ba léegi mënoo liir alquran moom loolu gàcce la xam naa du ñàkk ka wax looloo tax muy wax waaye xëy na nam ko waxee la xaw a doyee waar rek waaye nag damay wax ni ku nekk ci yéen na dugg néegam visité boppam xool ndax man la yox wax wala déet mbokk yi il faut ñu jàng nag dëgg dëgg il faut ñu jàng gis nga boo jàngul foo nekk bis dana ñëw ñu toroxal la parce que foo nekk gis nga nit ñi yàllaa leen dimbale de fu ahlu na nekk bu ñaay masala diine yow lañ koy laaj <laughs> eh, na ngeen ko xam de laay laa ku nekk ci yéen dal na la koñ ba ngeen léeg-léeg benn paa baa ñëw sa gëseet waaw sama doom lii moom nangam mais dalaa yaakaar ci loolu mais bu la yaakaaree ci loolu yow it nga toog rek jàngi woo du sotti il faut ngeen di jàng mbokk ngeen di organiser wu ut programme góor ñi bu leen foog ni jigéen ñi rek kay jàng man man xalqa jigéen ñi rek laay gis ñoom maama di ne fii di jàngale ñee di jàngale jigéen ñi mais góor ñoom daw rek uti dépense ñëw rek il faut ñu boole ci programme jàng nag HMD il faut ngeen ut programme jàng oustaz yaa ngi fi ngeen ut téere bu ngeen utee téere patron HMD ba ci suuf ñëppay jàng ku ñëwul ñu ne la eh, da ngay ñëw nga jàng mais loolu moo jaadu.